programme parce que ba ñuy waxante seen appel vidéo kenn fekkeew ko donc amul woon sax pour enregistrer vidéo yi naan mu ngi ko nañu waxante dëgg nañu bàyyi di doxaan xale jigéen ñi si Instagram ba pare dañ def loolu ci n'importe quoi bu ñu tëlee naan dañuy génnee nday moom moom mooy kat. ok eh Adama man la mami dollar de. xamee nga ma ci dama lay laaj demande la. non xamee nga ma ci nday yooyu. man la mami dollar de waaw léegi lan moo tax keroog moo wala appel vidéo nga woon dossier boobu euh, sarbet bi. yow kañ nga ma musa woo appel vidéo may woddoo sa duuli. keroog la woo sarbet toog ay nit ci saal bi. man lan da nga ne ma damay doog a yeewu sama kër lan ñëw ñooñu ñan lan. man mi ma ko wax. man mi dollar yow. barke mas nga ma woo appel. non appel vidéo barke Serigne si nekk nga ak duudi bu Siri Adja ma trois heures du matin. waxal ko mën a am may ma rek damay ah, duul. yow ah, da nga ma woo yaa ne damay duul bu fi wax. non da nga ma woo eh, non non may wax a yow nga ne ma damay duul. yaa ma ko wax de. waa duuloo déglu. waaw kay aha na gaaw de lan mooy da ngay duul. yow katal sa ndey fale boo duulee dañuy wax da ngay duul. waaw non waxaan ma da ngay duul. Adama waxaan ma da ngay duul. téléphone kay du duul. gaa yee seetaan. fàtte na nag bul fàtte ne 6000 personnes ñooy seetaan 6000 personnes ñooy seetaan. Adama yow nag moom mosoo ma def serviette di wax ak yow. barki alxuraanul karim bu fekkee nga woddoo ab sër man laaj la nga ne ma da ngay doog a yeewu ñii ci kër gi la nekk yal na ma yàlla rey. may ma ma xool screenshot bi. bindaahi mais loolu dëgg la sama kër la. waaw kay mais fekk lay bañ rek man bu nu waxtaanee juboo rek amul problème. léegi woowoo ma quatre heures du matin nekk ak ak duudu bu séeri Adja. mais Adama mi ça va. Adama ñun ñu am suñu anniversaire. nga woo ñu ah. tombé anniversaire bi. ñu lay présenté suñu gars yi ah. loolu ça n'a a à voir ak li waaw kay mais non non man aw faut pas mélanger les choses écoute-moi très bien mami Dollar ma wax ak yow yaa ngi mënul lekk moromam te kattul ndayam waaw kay mais loolu bëgguma ko bëgguma nga may fenloo man damaa bëgg bu ma la laajee rek nga ne ma lii dëgg la ñu jàll amul wane amul dara yow ma tax mais naan ma ay da ngay fen ak da ngay dul loolu ay hors sujet Adamo waaw non non non amul o léegi continuer si jigéen ñi waa buddil buddil buddil yow kay yaay buddi yaa fi dugg buddil ma ne ñoom dugg